vieille atome yooyu leen loolee sax tax na moom mi nga xam ni moo ni Dof Ndeye ak vidéo bi nga xam ni viral na loolu ni ngi ni démb ci leen ci internet bi moom mi nga xam ni moo daal yor ab ngànnaay di wër kookale ak xale bu góor ba ginnaaw bi nga xamee lenn ci vidéo internet bi lee daal wane moom mi moom Dof Ndeye rapport bi lee daal di xamal bu baax a baax ginnaaw bi ñëwee ci conserve ba xale bi dafa yàq otom bu baax daal di sàcc li nga xam moo di seen orop boobu la mun mën nañ ne sax lenn ci ay nit di témoin ni xam ni moom yàgg na fee ñëw foofee muy troisième fois waaye kat daanaka mën nañ ne dañ kaa tooñ te ñoom ay témoin lañ ci loolee sax moom rapport bi lee di Dof Ndeye gis nañu saa su ne ku daal miin arme la lu mel ni paaka ak yeneen xeet yooyu sax tax na ci nguur yi ñu jàll ba tey jile lenn ci patriote yi daal di mer ba fut la ñu amee ni ngi di démb ginnaaw bi nga xamee gànnaay googu la jëm na ko waa jile ba moom Dof Ndeye daal di xamle bu baax ci vidéo bi filmeel filmeel mu nekk ay kàddu yi nga xam ne mu ngi koy fësal ci boobu la vidéo loolee sax tax na lenn ci senegal yi ñu bëri daal di mer bu baax baax daal xam ni lii dafa war jeex ci mim réew du Sénégal te état bu Sénégal gi yes gile bu fekkee jël ci ay matuwaayam kon nag mën nañ ne li nga xam ne moom la ñëpp doon jooy bi léegi daadu daanaka dara weesu dara jógewu fi loole sa tax na autorité yi lee judiciaire bi lee daal di jël li nga xam ne moo di mandaa d'arrêt teg ko ci moom nga dodd kii de rapport bi di wécc turu Dof Ndeye ci ginnaaw boobule rapport boppale mbir bi nga xam ni kat ñu ngi def mandaa d'arrêt ngir jàpp ko te jële ci xët yi nga xam ni daal nañ koy jot moom Dof ndey daal nañ koy teg loxo ci ñi nga xam ne ñoo di force de défense et de sécurité yi gendarmerie ko def mu xam ni askanu Sénégal ñëpp loolu lañ doon xaar ca moom ba tax na lenn ci internet bi lee commentaire yëpp benn rek la mooy na dee ci kasa ba ndax kat kii dafa jot askanu Sénégal gi lee justice daal di wan ni ko dof ndey Sénégal gi ñu toll nii amatul ku ma am ndey ak ku ma amul ndey dañaa bëgg Sénégal la Diomaye Faye bi lee Sénégal Ousmane Sonko bi lee Sénégal ju yees gi lee ñëpp bokk ci yem ci wàllu justice ak lépp loo xam ni ci mim di Sénégal gi ba tax na kon daanaka rapport bi lee mën nañ ne kon nag ñu ngi ci loxo yoon dañu xool bu baax a baax ginnaaw bi nga xamee waxoon moom am na ay témoins ci ak vidéo yi nga xam def na ko dañu xool naka la wanante mujj ak gëtam ndax yoon dafay def liggéeyam wala dafay sukkandiku ci li nga xam ni moo di vidéo ba bile wala kat dafay sukkandiku ci ay témoins moom yi nga xam ni nee na am na ay témoins ci ginnaaw bi nga xamee vidéo bi viral bi wër ci internet ba bile waaye li mënta am ba am daal moom Dof Ndeye daal dañ koy teg loxo